Youssouma Jigéen Ndour nekk artiste musicien bu kenn dootul présenté ti fii ci réew mi ginnaaw rek ci ab xeex bu mu seqoon nag soxnaam si di Aïda Coulibaly ndax Youssouma Jigéen Ndour dafa daal di tàggu soxnaam si di Aïda ndiki samedi xamal ko ne ko dafa amee benn réunion de travail te amaana sax dana fa guddee ci noonee rek la Aïda daal di amee ñaaw njort ci li nga xamante ni borom këram boobee wax na ko ko ci la daal di toppaloo ginnaaw rek ci ay piste yoo xamante ne nii rek ay xaritam jox nañ ko ko ndax moom dafa ñaawoon njort ci li nga xamante ni borom këram xaritam boobee wax na ko ko ci noonee rek la daal di gisee otoom rek ci benn immeuble bu nekkee Ndakaaru waaye nag dafa daal di créer foofu benn scandale daal di koy génne ba ci biti daal di koy xaawi suturaam daal di koy dóor dóor yu métti askan bi nag daal ci jaaxle lool ginnaaw rek buñ sukkandikoo rek ci Walfadjri mi xamle yooyu leeg information ci noonee rek la askan bi daal di sampee ab laaj daal di jëmee ci mbir moomu ndax Youssou Madjiguène Ndour dafa war a rek sàng boppam xam li muy def ndax dafa nekk kilifa waaye itam ndax dafa war a yar ki nga xamante ne nii moo di soxnaam nekk na nag mbir mu doy waar lool ñëpp rek ñu ngi ci yëy yàbbi rek jamono jii en tout cas daal liñ mën a jàpp rek moo di kii di Aïda yi dafa dóor dóor yi métti ki nga xamante ni moo di borom këram bii di Youssou Madjiguène Ndour ndax daf ko fekk rek muy doxaan ci benn appartement xamante ni euh, musicien bu ñëpp xam la nekkatul ko ñuy présenté jamono ji donc euh, ñu ngi xam ne ni que ci boutique euh, samedi bi dafa tàggoo woon soxnaam comme quoi dafa am benn réunion de travail te dina fa yéene guddee boo moytu sax dina fanaan donc par la suite ñuy xam ne ni que soxna si dafa daal di mujjee ñaaw njortu ndax jamono yooyu yëpp daf ko doon soupçonné d'infidélité ba mu euh, interroger ñi nga xam te ne ñoo di yenn xaritam yi dañ ko daal di jox yenn piste ñu daal mu daal di koy fekk ci benn immeuble bu nekk fii de ci réew mi ba mu demee foofu nag ba couvre-feu bi jeexee mu daal di fay gis oto borom këram boobu daal di koy fekk ci euh, li nga xamante ni moo di kër gi euh, donc ñoom xeexee wuñ ci biir gi mais dañu génn ba ci mbedd bi en ah, soxnaam si dóor ko dóor yu métti oh. donc ñenn ci internautes yi doon demander à savoir soxna soosu kan ak borom kër googu noonu musicien boobu kan la mais par la suite dañoo gis ne journaliste bii di Adama Gaye moo génn si page Facebook pour dire euh, musicien boobu Youssou Ndour la te euh, lii lee na waar bu baax ndax honoré wul li nga xamante ni moo di état du Sénégal ndax moom dafa bokk ci nguur gi euh, donc buy joxe na joxe le bon exemple non seulement waaye mu yor ki nga xamante ni moo di soxnaam aussi. mais lan mooy bon exemple. mooy mooy Youssou Ndour doxal. waaw waaw doxal waaw peut-être xeex bi. xeex mais xeex jabar ji moom problème xeex man d'accord naa ji moo man pour man jabar parce que yow di ñu takk la ci biir kër da nga war a toog jàpp sa ñaam ko moom yow nan bañ takk waaw nu mu bañ takk moom nu mu bañ takk moom dañ ko doxaan takk doxaan bi mu koy takk bi mu koy beneen jabar Youssou bi nga koy takk Youssou Ndour ne kii Camara mami Camara. Ah. Mm-hmm. non il faut arrêter yow amul droit dem doxaani dem takk yeneen jabar. mais Youssou Ndour dafa amul benn droit di ko dóor Youssou Ndour suñu patrimoine la. non ko xoolal du yoon non mais non mais c'est un patrimoine la la même. bu ñu donnee un spectacle comme ça. mais rek suñu patrimoine la waaye waaye avant ñu doxaat ah, mais c'est quoi cette histoire là mais yow nga may topp. waaw na yar jabaram nag. xëy na moo ko jox pouvoir boobu parce que nit aussi bu la yabee ba tollu nii yaa ko may. waaw loolu ah. loolu dëgg la.